asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais man la sen frère mam Thier ma dellu ci wat tay rek ah pour def ben vidéo bo xamé né réponse la ko tuddee à notre frère Baba aidara et yeah, parce que vraiment man ko don xaar sa deux jours yi parce que bëggoon naa def vidéo bi bu yag mais dama né won comme dafa mom da fay génne ben vidéo euh, pour indi ay léral indi ay preuve am la don doon parce que eh, euh, conférence de presse mom bi mu def defe naa bépp sénégalais boo xamee ne seetaan nga ko gis nga fu mujjee ay menaces la mujjee ak ay euh, xasaate te defe naa menace am yooyu ça fait peur qu'un chat tiitalul muus sax donc euh, nañ ko bàyyi noonu rek donc xas xaste la mujjee aussi di xas euh, ay xarit ay ay nit yoo xamee ne vraiment defuñu ko dara lu dul wax dëgg gi rek donc de maintenant la vérité fait mal quoi alors donc tey dañuy ñëw rek dugg directement au but du sujet quoi bu ñu yàggal parce que li xewoon ñep xam nañ ko muy histoire Toulo Oil Sonko à la veille des élections mu nekk ben fake news bo xamé né journaux yu bari amul ku bindul observateur ñom ñap gaan xam nga song Sonko dal wax ju ñaaw ju nekk ñu wax koko pour yàq deram rek parce que booba vraiment amna ben aura bo xamé né créé nako au niveau des jeunes au Sénégal jeunes yu top nañ ko gouvernement bi tiitoon na tuuti donc ñom il fallait que ñu créer ay fausse information pour pour pour saltel deram quoi ci bir saltel deram bobu nak ci la inventé won né Tullow Oil ben société pétrolière bu nek Angleterre daf ko verser 195000 dollars xam nga euh, ñu ñu sos ben article bo xamé né nee nañ benn journal ghanéen bu ñuy wax Modern Ghana moko publier euh ben jigéen mo bind article bi jigéen bu ñu Michel Matsen waaye ci bir article Michel Damsen mo ci nekk loolu dinañ ci dellu ci mais pour commencer rek euh, dañuy wax ne ku fekkee ne sétanu len reportage BBC bi nga xamé ne mo sétal Sonko ñu ngi len di wax ne euh, suñu benn xarit patriote euh, BMW nek Pastef worldwide def na ci liggéey bu am solo aide na sénégalais yi nga xamee ne déggu ñu anglais ñu am possibilité dem déglu article bi bu baax a baax a baax déglu reportage bi gudd na trop dañ ko dag en des morceaux donc vraiment ñu ngi koy remercier solennellement ci liguey bobu Mo, xamé né mom la def kuku bëgg sétane nga dem TV euh fofu ki nako fa duggal donc képp kuku bëgg déglu rek mais revenons à Baba aydara Baba aydara l'autre jour dafa wax ben wax ay wax yu je ne sax pas wax mais bi ci rek mom un par un lañ koy jël hein ah. néna information bi. c'est pour justifier ah. Euh, donc baba ñun ñu ngi lay wax rek né Sénégal mom yag nañ fa wax dëmm lek la jalé la quoi donc bu fekkee né yow le fait que nga né da nga démentiroon information bi rek mo waral ñu tay ñu wara gëm né yow nekulo ci gannaaw information bi vraiment tu nous prends par des par des par des par des idiots quoi donc xamna sax lool ngay xalat parce que si sa bir inform si sa euh, euh, conférence de presse bi yëpp li ngay wax mooy sénégalais yi dañoo doof amuñu intelligence ah yow da nga yow high level nga yow moom xam nga yaay journaliste yi gën a mag ci àdduna te man li ma gën a metti rek moom mooy bi la Midel Michel euh, Madsen woowee téléphone sa anglais njalaxaan boobu nga doon làkk man moo ma jommal quoi. yow ak Yërim vraiment war ngeen dem defaat ay cours d' anglais même si que euh, du du du du bon bañ a dégg anglais. mais boo leen di woote ah journaliste yu mag yi ngeen doon te mënu leen wax sax phrase anglais bu jub. te yow plus de 20 ans États-Unis daf may mais ko yow euh, nga démentir information bi la ci gis nañ fi ay nit ray nit ba police di policiers yi di wër lolu mom gis nañ ko dans lire nga ko ci ay journal lire nga ko fu donc de la deuxième bi nga ne ndaw si tour du monde monde pour démentir une information mënoon na dem porter plainte mais ndaw si mënul porter plainte parce que intelligent que vous êtes mom len ko yow ak Yérim surtout j'imagine aussi que Yérim mo la bien que yaa koy ay fleurs nan intelligent même si que sax avec les euh yi xaw bi récemment ñu wax né intelligence am tamit vraiment c'est au top quoi mais nak liñ ñu naan cuune du ko quoi euh, ba euh, Yérim euh, Yérim Baba li ma lay wax rek moom mooy Michel Madsen mënul porter plainte xam nga li tax mënul porter plainte bu jëloon dossier bi tey yóbbu ko dans les tribunaux anglais dinañ duñ euh, irrécevabilité lay am parce que yéen cité wu leen turam. da ngeen muus a muus a muus a muus comme ni nga koy waxee ba da ngeen dem créer Michel Madsen am na sama benn copain sax nee na ma bi ñu toogee xam naa di inventé histoire bi euh, Yërim moo wax baaba. Euh, ne ko non nañ ci buñ ci def turu ndaw si quoi parce que xam nga mën na garaaw buñ ci def Michel Mat mais nañ ci def Michel Dame Sène xam nga ñàkkul da doon déglu Dame Sène ci biiroom xam nga taasu yeeg yooyu xelam dem ci Dame Sène quoi ñu créé yooyu quoi mais bu ñu paasee loolu donc loolu rek mën na tax ndaw si du porter plainte ndaw si nekkul comme ni ko ni nga waxee ne question bi ko yërëm posé ne ko yow waroo waroo def enquête bi parce que tu es juge et partie ndaw si du juge du partie ndaw si da ngeen yàq deram ah mu def gym nee na génn ci jour veille élection yi génn salle de gym Sénégal ku nekk di ko woo ñun ñii ñëpp ku nekk di ko yónnee ay email mu gis boîte email am fees mu ne mais lu xew ñu nekk da ngaa bind benn article Modern gaana wax benn candidat boo xamee ne vraiment ñu bëri dañoo teg yaakaar ci moom ah te yow comme nit ñi dañ laa gëm si say article xam nga donc ñu bëri dañ ko gëmoon fekk lépp gars yi ñoom ñoo ko créé donc ndaw si ñëw Sénégal uniquement euh, euh, Baba pour setal boppam comme yow tey li nga bëgg a def yow tey nee nga da nga bëgg setal sa bopp pour pourquoi yow li nga bëgg a nangul sa bopp nga bëgg kan bañal ndaw si ndaw si dañu koo tooñ yàq deram muy wër ah te puis à partir de là aussi yaa ngi tooñ waa BBC yi <laughs> BBC yi yow noo yàq seen der tuuti nga ci ci ci ci ci ci ñoom journaliste yooyu nekk BBC duñ sa morom tuuti nga ci yow tuutal BBC yow BBC bi mu fi ñëwee dal Petro Tim ah génn information yi ah si Frank Timis lépp. ñëw Sénégal def reportage yow keroog bala la journaliste sénégalais yi woowee danga doon jooy parce que da ngaa kontaan naan BBC jox na la dëgg ba mu koy wax ngay kii di jooy jooy mais ñëpp xamoon nañ ne sa jooy jooy yooyu jooyu ko crocodile la xam nga gëmoo ko woon xam nga gëmoo woon sa jooy yooyu nga doon def donc suñ jogee foofu noonu ah dañuy ñëw directement ah ci problème mu euh, euh, Sonko nga ne yow Sonko Baba dang ko parce que mom waron na la contacter mais ñi bi ñëwé dit di def reportage bi ak Sonko est-ce que ben yoon ah né nañu Sonko Baba Aïdara li Baba Aïdara la mais mësul ñoom dañoo ñëw def seen enquête dem dem ñibbi donc Sonko moom ban faute la am pour waroon la contacter ba ngay wër ci dëkk bi yëpp naan nga mere Sonko da nga def nii Sonko ñuy wax nag ñuy wax nag nga ñëw di indi ay histoire yoo xamee ne ça tombe vraiment debout yow euh, nga ne yow yaa euh, xamal Sonko ne ko comme da nga <laughs> da ngay doog a ñàkk sa liggéey ah te jamono neexul da ngay créer lu nuy wax Skype mais yow koy fooye baaba ñun Skype bañ ko commencé utiliser ëpp vingt ans. nga bëgg ne Sonko mu ngi biir Sénégal googu te xamul lan mooy Skype yow yaa ko xamal Skype Sonko ah ah mu ngi mel ne rek nga naan yow yaa créé ndox mu tàng ko mais Baba sois un peu sérieux quand yéen li ngeen doon def yàlla moo leen weer ah da ngeen bëggoon yàq deru Sonko te yàlla moo leen woor justification yi nga joxe yëpp yëpp yëpp yëpp amul benn benn benn benn boo xamee ne taxaw na ci fi nga commencé ci kaw ba ci suuf amul dara loo wax loo xamee ne tey mën na la justifier Euh, te li ma lay ñaan mooy bés boo demee bay génn sa justification yooyu ngay wax na nga contacter bu baax a baax sa xarit xaw ma sa xarit la xaw ma lu mu doon Bride Ouzou ñun def nañ contact ak moom ah te am nañ ci ay information donc bu jaree ñu génn waat rek ñu génn waat quoi mais man defe naa coow li jarul wax jarul ay wax ju bëri léegi quoi li war a leer si suñu bopp leer na suñu bopp. on est sûr à 100% que yow ya ci information bobu yow ya dem proposer même Khalis pour ñu publier euh, fake news uniquement pour yàqal Sonko maintenant li ngeen ci won bari na ay euh, ay ay explications yu ci ñu bari def amna sama yenn copain ne uniquement parce que da nga jaloux Sonko dafa ñëw leen xam nga gis sax ay def ay vidéo live ne jalousie moo la jàpp mais man li ma gën a jàpp rek moom mooy corruption quoi pour man euh, même yow sax sa dernier voyage Sénégal gis nañ ni nga waxee parce que da nga dem toog te la ñu interviewé la nga ñàkk en ah, dossier pétrole yi nekk sa kaw yëpp ak lim loo mënti wax nga naan non man Macky Sall ni ma ko gisee jàngkat la quoi man daal loolu xamal naa ko doomam quoi. ba ñoom Karim ñun ñu ngi ak vidéo yeeg kii yëpp ñoom ñu def ay vidéo di la interpeller xam nga parce que nee nañ Aliou Sall recevoir na la am lu mu la jox Macky recevoir na la am lu mu la jox mais nag xam nga bu la neexee nga weddi quoi mais nag xam nga bul bul kii ba pare ñaaw ci xare bi def nga li ngay def jàpp nañ la xam nga teetwaa quoi xam nga nga bàyyi mu sedd quoi man loolu rek laa lay conseillé billahi yee bu ñu passé ci loolu nag dañuy ñëw ci information yi nga xamee ne vraiment man mooy lim yi ma gën a tenir à cœur quoi vraiment parce que Sénégal fi mu toll nii defe naa beneen Sénégal la ñuy dund quoi euh, li xew cité gàddaay barka démb waxuma sax au delà que ñom dañoo dem tribunal am raison xam nga juge juge ne len yena mom moom terrain xam nga yena mom moom kër ni japp waa condamné ko tej xam nga mu jaar ci gannaaw rek la ay papier rek les papier dal dafa xew quoi té rek les papier yoy noonu dafa interpeller beaucoup beaucoup les intellectuels xawma les niveaux aristocrates sénégalais quoi xam nga moy ñi nga xamé né tay vraiment khalis moo leen gënal seen àdduna lépp lu ñu mënta am daal ñoom ñoom jë jë argent daal la ñuy jaamu quoi te vraiment toll na foo xamee ne dafa jégg dayu actuellement bi si jiitu nag moom mooy cité gàddaay laa bëggoon wax vraiment mais li ma ci gëna a metti nag mooy geste policier boobu jàpp maire bi dugal ko ba ci biir oto bi jël fetal dóor ko ci ndigg li quoi mais c'est c'est vraiment dégueulasse euh, dans un pays sérieux vraiment kooku waroon nañ ko arrêter quoi te Aly Ngouille Ndiaye loolu war na ci wax quoi vraiment salte na salte na fu salte mën a yem quoi loolu ah dafay ñaawal image yu police su Sénégal billaahi wallaahi tallaahi ñu am yërmande si baadoole yi mais suñu suñu suñu suñu suñu jugee si euh, loolu dañuy dem ngeen ndengaleer ndengaleer ndengaleer defe naa jomaay moo ñu filé information bi kenn yëgu ko woon ñu ne benn genre milliardaire sénégalais bu ñuy wax baaba Babacar Ngom et je profite de l'occasion wo sama boy ñom ñep jigi ñep ñep ñep ñep di wax sama xarit Ousmane euh, Dramé li mom il faut ñu jox ci mom li mom dafa fa laaj dafa laaj ay ay ay campagne pour wa jotat seeni souf quoi nenañ euh, communauté rurale bouki euh bu euh, Sindia ñom ñoo jox presque plus de quatre-vingts hectares yoo xamee ne ay tooli waa Ndingler lañ dégg naa sax paa yi dañoo dem ba bay seen dugub ba pare sa waay ñàkk yërmande kilee Babacar Ngom yónnee ay tracteur deqi jiw mi quoi si waaw parce que dem na fa di leen jéem a corrompre ay deux millions paa yi bañ xam nga vidéo yaa ngi fii ku gis vidéo boobu sa waay dugal keroog jomaa yi sa xol dafay daw xam nga ñëw antana ah mais problème mu Sénégal li li ci gën a metti moom mooy dañuy seetaan quoi waxuma sax xeex beeg lépp mais waa ndenge leer xaw ma xaw ma nu ñuy waxee dëkk bi. waruñu seetaan quarante familles yooyu ñu jël seen tool rek dëkk bi ñëpp la war a concerné bu fekkee ne dafa am ci biir dëkk ba ay mécaniciens ak lu mu mënti doon ah. koo xamee ne leneen mooy seen liggéey loolu moom mooy problème mu Sénégal dañuy ñëw lor mécaniciens yi ah ñi nga xamee ne ñoo ne ci biir yi di leen ñi nga xamee ne ñoo ne ci tool yi di leen seetaan bu ñu laalee borom tool. Ah, mécanicien bi na xamné borom tool bobu salade sauce muy jaay mom da ci lek donc dafa wara a teub jog dem jappalé ko ci xex bi ah nañu jéem am solidarité bobu bés buñu commencé di mixer solidarité euh, xex bi bu boba dinañu am gain de cause ah mais ñu tok rek buñu waxé gaay yi xam nga jeunes yi ñoom légui ba légui ñu ngi abonné ci TikTok bi talaguñu combat bi yewoguñu mais nañ leen bayyi fofu rek mais lu xew ñu ne Guy Marius dem leen jëli giimari Marius Guy benn nit lay bàyyi Guy Marius mënul xeexal Sénégal yëpp il faut que ñëpp jàpp ci xam nga bu ñu tooñee benn dëkk waa dëkk ba yëpp jóg waa Ndengaleer nañu organiser fii nii ci panel yeeg fépp jéem leen jàppale parce que lii dafa ñaaw nawet baa ngi dugg ah te mënuñu bay te bay la ñu yaakaar dégg ngeen li góor googu wax xam nga man dama defe ne ces petits milliardaires là ah amuñu yërmande quoi seen jabar yi aussi xanaa duñu leen wax ak ñoom ah am dañoo yor jabar yooyu nga xamee ne gars bu ñu amee cheveux naturel rek xam nga seen àddina ñoom dem nañ àjjana quoi vraiment Babacar Ngom ah sédiment xaw ma yeewaatal sa xel baay def nga affaire bu salte baay billaahi paa yooyu noonu quatre-vingts ans ak lu teg ah yërëm leen yërëm leen baay ah adduna bi dara desatu fi gars ngay def ak yu salte yooyu quoi vraiment sama xol dafa jeex dama ne woon si laay mujjee parce que xam naa euh, sujet bi su ma ci duggee rek ah, sama xol du neex quoi billaahi ah gars yi nañu jóg organiser wu gars yi woowaan Ndingler jàppale leen lii buñ ko bàyyee noonu Macky Sall bu fekkee ne moo déclassé terrain yooyu jox ko Babacar Ngom ah na leen ko delloo waat waa Ndingler xam nga ñu dem bay seen bay nawet bi dugg na am lu ñu dundee yow joxatoo leen loo leen dundee di leen xaj xañ nag fi ñu war a dem ñoom pour am lu ñu dundee mais quand même soyez un peu sérieux